di am mbégte di tegaat sama tànk fii tey ci sama buntu kër jigéen bii Adja Ramatulaye Diallo fii du tey laa fii doog a ñëw. mais di saluer aussi les jeunes les jeunes du parti maa ngi leen di nuyu bu baax am na mbégte monsieur le maire Djibi Sow Goudiaby maa ngi leen di nuyu Darou man gii ma ñëw. ànd fi ak notre candidat à la mairie de Rufisque Nord Djibi Sow mi taxaw dafa di gox bo xamné dafa nek gox buma ñor dafa nek gox buma ñor parce que bu yalla defee nga bëgg jël baatu dëkk bi faaw nga bayyi xel Daaru Rahman daru Rahman nak bayyi xel bima len bayyi xel du tay la door xaaruma ba election ñew may doga baye rahman firnde bi ci mujj moy daw ci mois de décembre man Seydou Diouf rahman Setsioulen siwu leen ma wax mako kenen député à l'Assemblée nationale gis rahman ni en termes de population man ma dox muy sama khalat ne Darou Rahman war poste de santé ak maternité pour 100 millions de francs marco dox mako wax bañu jël bi def ko ci compte maire Omar Mané mako wo mako wo ne ko toppatoo 100 millions ci gouvernement bi pour ñu def poste de santé ak maternité ci Darou Rahman ndax 36 000 habitants fu ñu yeewu faw mu am poste de santé ak maternité loolu tey maa ko woo maa woo médecin chef du district docteur Thiam maa toppatoo ba xaalis bi dugg ci keesu mairie bi ba xaalis bi duggee ci keesu mairie bi nag laa ne man sama jaan wàcc na li ci des ñoom ñoo ko waroon dox ñoo ko waroon lijjanti parce que bama len waxe dañ mané am nañ terrain waye amuñu koppar ma dem lijjanti leen koppar yi jox len ko kon tay xamna Rahman li fi wara am nawet bi ñewna fi ben yon ñaar yon ñet yon guddi la fi ñew duma anda ak gangor duma duggu kër ben responsable dama nyu, ñew pour xol ci jamono nawet naka la Daaru Rahman di dundé waye mën na len birné ne fi ñëwé chaque fois ci nawet bi bu may dugg Rahman damay wër Je ji génn commencé dugg ci paris ba jëma yegg ba grand euh, bayal bu mag ba à la ne dañ ko wara changer dañu wara bayyi xel dëkk bi ndox mi nekk fi di couler fi nga xam ne ñu ngi ci di couler ndox mi ci quartier

moy fi la population bi ëppee ci Nord fi la soxla yi Nord waye fi la doole ji Nord kon yité Rufisque Nord intérêt ngeen doomu Nord bu mën gagner meri bu mag bi moy la mairie de la ville ngeen jox ko sen bat bo PPC Rahman Subak sibir dinañ changer maire bi nek fi nga xamné ne fukki at ak ñaar mu ngi fi lul lenn askan bi lu leen jëmale kanam lu tok di jël budget maire bi diko tong-tong diko ko ci sen bop Sen ci dëkk bi sen bop lañ ci défar kon n'ak le 23 janvier yen yen yor carte yi war indi changement changement bi sen changement le, changement bi changement ou jeunesse bi le parce que doomu Tëngéej tay taxawayam ci Sénégal dafa delu ginaaw suñu dëkk ci Sénégal dafa delu ginaaw man sama combat moy fexe ba doomu Tëngéej ci Sénégal retrouver wat dignité ak fierté parce que ñu ngi defar Thiès ñu ngi defar Ndar ñu ngi defar Kaolack ñu ngi defar yenen dëkk mais bu féké né jëlu ko jël sen jox ko ko xam ne am na taxawaay di xeex di xëcc indi Tëngéej bu boobaa Tëngéej day gën a dellu ginnaaw